GMC leader, the leader of Gambian Moral Congress has called on Barrow administration to stop interfering in the administration affairs of Social Security and Housing Corporation. In a statement from my Ahmed Fatih's Facebook page, advised government to focus, be concerned on how to drastically reverse reversing the serious damage already done to the public civil service sector with reforms, restructure and re-equip not to consolidate the status quo for the interest of the country waaw li GMC seen leader bi mooy may Ahmed Fatty moo nekk di wax euh, di ñaax government bi nañ bàyyi di dugal seen loxo si administration yi social security bi daal maanaam nañ leen bàyyi ñu liggéey si seen xel bu dal ñoom ñu doxalee. waaw xel bu dal moom daal ñu mu mu euh, focus ci leneen. Mm-hmm. defaraat euh, civil service bi euh, restrict restructure ko comme ni nga ko waxee ak yeneen yi nga xamante ne wax na ko moom gis-gisam la léegi nag nguur gi def nañ lu ñoo def ci social security ku fa nekkoon génn nañ ko dafa mel ni nag coow li boobu ba léegi. mar ci dëkk bi ku ne mu ngi cee yee di yàbbi. Mm-hmm. lan moo ko waral ak yu mel noonu man li ma ci jaax rek mooy. you know président bi foog naa ne génne na ci ñeneen léegi mu génnee ministre sax waaye coow du demee nii. Mhm. Euh, bu génnee directeur nag coow bi nii dafa mel ni euh, dana dana xalaat mun a you know moom nga nag mun nga xam mooy loolu. waaye tamit foog naa ne moom li tax mu génnee ko moo ko xam. you know anyway euh, ñu ñu ñu ñu bàyyi ko moom tamit xalaatam. la la wax te dafa ooj nguur gi ñu concentré duñu tafee ci ci social security. is moom sax te yëpp bum bum. xëy na na xëy na boobu man sax dama foogoon moom adviser la si président bi. non jógee na fa yàgg na. Ah, resign na kon pour nga gis ko si news bi mu yomb na mm. trop. Mm. gars yi nag ku si jël poste rek doo doo leen gis ñuy waxee foofu noonu mm. feneen la dem. waaye social security comme ni mu ko waxee because ñooñu itam foog naa ne des a ñu fa liggéey ñoo njëkk a génn ñaxtu ne seen njiit bi soxlaatuñ ko fa. te yaakaar naa tolloo nañ si téeméer lu teg oo lu ko ëppa ña génn ñaxtu te ñoom ñoo dëkk ak moom soo lan moo doon problème bi foofu. Mm-hmm. soo loolu tam mun naa bokk ne si lu jur euh, président bi jël dogal ñu génnee ko fa li si des ñoom ñoo xam wante anyway daal ñi ñiy jiite bré bi tam ñuy bàyyi xel ñu ñëw jiite comme ni ko gars yi di waxee rek da ngaa yërëm ku la féetoo ko ku ñi la féetoo suuf ku la féetoo koo yërëm la parce que am naa ne soo gisee. béréb lu mat téeméeri nit génn fa di ñaxtu si sa mbir say doxalin. am na lu si jagut. waaw mu ngi noonu euh, moom noonu la ko gisee. Mhm. Euh, keneen tamit am na